maa ngi leen nuyu di leen sant te di leen gërëm te di bëgg leen a jàppale rek ca yàlla tax ndax yow bàyyi Sall yow dama ko commencé ci Cheikh Fallou Diop mii ndax dañoo bokk koñ bi bokk daara ji bokk ak sa baay fu mu jëm sa baay ba tey macha allah jàpp na ci lool te nag jàppale na fu jàppale yam te ñu ne nag dinañ ko jàppale dinañ la jàppale ndax yow dangaa bëgg ku jàppale ndax li tax dinañ sawar ci jàppale la sa baay da koo da koo jiital démb tey soog di ñëw kon boo jógee sa xel dëpp sa baay tegal tàngam ku bëgg ko faa teg du ñu jàppale jàppale rek lan mën a def léegi nag Ablaye la moom boom bu ko bëggee dañ cee ànd ak moom ni mu neex. sëñ Ablaye moom wax dëgg yàlla daara ji luñ ko ci waxit dañuy koy yokk rek waaye ci la ko fekk ndax tari bii jàlla am na lu fi def lu am maana avant tari bi di ñëw bu tari bi jàllee tamit. indiwaat na fi loo xam ne lii njumtukaayu gone yi ñu teg suñu bët waaye nag loolu moom defal sa bopp la waaye nag ku la defal lu baax du tee nga sant ko ndax wax dëggit moonu mooy kanam may nu tamit yoon wu nu jaar ba mën a taxaw di ko wax ndax boo xamante ne duggutan ci daara ji defu ci aw ñaqam te ànd koo xol bu sedd kon du nu mën koo xëy tey jii di ko wax lii waaye wax gi tamit dañ ko koy soññu rek waaye ci la ko fekk ah kon dañuy wax ne rek li mu def am na fu mu ko jëlee ndax Baye Sylla barki démb waxtaanam bi mu def ci digganteem ak Sëñ Saaliw ak gone yu ndaw yeeg donga ye kon Ablaye loolu da ko fee garab di siyaaru baax Sëñ Saaliw mi nga xam ne sunu lépp la sëñ baaraak gaa yi baax yi teew yëpp rek di siyaar baax sunu yaay yi ak sunu mag yi ak sunu bàjjan yi ñi xam teew na fi tey jii fii ci barab bi mu mel ni gataa bi li ko wunnu yenn ci ay mbir la mbir yooyee nag mooy ki nga xam ne mooy Abdoulaye Sylla euh, di njiital C50 waaye tamit ak société bi ñuy wax Ecotra ñu mën cee gis ay jumtukaayam yoo xam ne depuis 2016 ba léegi mi ngi wër maanaam ci dëkk bi maanaam di ñu jàppale waa dëkk bi ci seeni jafe-jafe nag màggal gi jub si Abdoulaye Sylla moom nag mooy ki nga xam ne mooy jiite yooyu mu leen wax moom na nit maanaam nit la koo xam ne ndax man moom duma wax loo xam ne leeru ma nit la koo xam ne ba ma ko dalee dégg ba léegi lu baaxam lay dégg lu baax lay dégg ci moom lu baax loolu may dégg ci moom firnde la ca boo demee jumaay Touba barab suñu fàllu moo ko ne def yaakaar naa un dem na ci ñaqu boppam ba ci barab si siir mu taar boobu kon kooku liggéeyal yàlla ñor na ko li mu ci gën neexit mooy doonu koo xam ne nii da teg bët man mi wax a yéen jëfal na ma waaye teguma ko bët mooy li ni soxna Mati Diop jàlle léegi yi fi def ki daara jeeg bis baa yëpp kooku nag mooy ki nga xam ne ni ngay deggee ñu naan diw ak diw ak diw dañoo bëgg nekk président moom nag daa fas yéene nekk président 2024 incha allah rabbi te yaakaar naa ne comme ni nga waxoon léegi rek képp ki wàllu yaan sa penc daa tëggut kon bu ñu amee bu ñu amee boo xam ne bëgg naa ñëw nekk candidature kon ñun li ñu war mooy te ñu gis ko maa ñu gis ko muy dox ci dëgg mooy li war mooy ànd ak moom ca loola. moom nag ni muy doxalee mooy nekkul na da yëkkati ab xaalis dina ko jox ngay ngay séddoo ngay nangam comme ni ko politiciens yi jaar xame nga xam ne seen seen campagne noonu la déedéet mbooloo bi jëmam ñooy nosu doon benn xool lañ bëgg bu dee luñ xamul luñ mënul la mu former leen ci ma bañ man loola mu financé leen ñu doon seen bopp nga xam ëllëg fu ñu dem da ngay demal sa bopp li naan maanaam jàng may nit ki gën jàng li ñu nappe moo moo gën xam nga nit ki bu ñëwee fekk la ci mbir mënoo ko. mu jàngale mbir moom ba nga man ko mu jox la leneen ak demal defi loolu yaakaar naa koo def wàccoo naa yow moom nag méthode boobu ci la ci lay jaar. dégg ko kon yooyu ay mbir la yoo xam ci lañ nekk mu nekk jëmm joo xam ne nii it man jàpp naa ne ni muy doxee nii yow doonagoo lenn ay at ci ginnaaw maam nga sa ñaq bopp di di di di maam di joxe la nga joxe maam bëggoo kenn ko xam ko jàpp naa ne bu ñu ko dimbalee ba nekk dara ci réew mi xañ na lañ la mu bëgg maam jafe-jafe yi yi dund mën naa saafaraw waaye nag ñu xam ne daal maam nit la koo xam ne dañoo war a bootu ànd ak moom jàppale ko ci li mu ngir Sénégal jëm kanam ndax Sénégal li fi nekk nii nii nii nii mu xeetu politique bi fi nekk nii ak xeetu euh, gouvernement bi fi nii moo jafe moo war a jafe-jafe yi ñoom nag dañoo ñëw ngir bu fay fi leneen loo xam ne nii day tax ñëpp gis seen bopp ci réew mi kon nañ ko ñaanal saa borom yàlla jotal ko ci loola. wax dëgg yàlla eh, am nañ njort ne eh, yàlla dana ko defal lool ndax ci maam ci lu baax lay dox kon nag ñoo ngi koy sant bu gërëm ndax wax dëgg yàlla eh, ci lu baax rek lañ koy dégg wax rek ci lu baax rek mooy yéemale wax rek def na ko fi ba ci université bee ne mu muy jàngukaay bu mag bee maanaam lépp lu fi war a def ci wàllum assainissement mi rek jàmbaara ca lool ma ngi cay góorgóorlu baax baax kon nag ab liggéey ab liggéeykat Sëñ Tuubaa la kon ñun état bi Sëñ Tuubaa la nañu ànd ak moom liggéey Sëñ Tuubaa waaye jàppale ko ci bëgg-bëggam waaye di ko waxee soxlay koñ bi nag mooy loolu maam na jàppale waa koñ bi ci loolu incha allah rabbi. yaakaar naa li li ñuy li ñuy li ñuy dem di ko sàkk ci à l'extérieur am na fii parce que man mënu maa comprendre koo xam ni yaa ngi def des années ci école ci école ci ci école ci école occidentale yi xam nga def jàng dem université def fa ay kii si siwul fa say cours xam nga euh, def formation ba nopp nga génn di sommer loolu dafa yoroon maanaam. man en tout cas man loolu man naa ne xanaa fiir la fay fiir la fay gis mais doo gis feneen te loolu lépp yaakaar naa war na war na naa mën a jeex ni muy jeex nag mooy suñu grand frère bii di am ay am ay ambition ci am am yéen trop ci ci ci dëkk bi bëgg a nekk candidat bëgg a nekk président na da nga ko war a jàppale ni nga ko jàppalee du leen du leen dul mooy euh, ñun leen mooy suñu force mooy carte électeur bi mooy suñu force nan fexe ba ñëpp am carte incha allah ci lépp lu ñu ko mën a jàppalee jëm ko jàppale ba mu nekk président de la république loolu rek moo ñu mën a fajal suñu soxla.